dégg nañ sa programme bi dégg nañ waxtaan bi kontaan nañ si waxtaan yàlla dafa def nag yaa ngi jàkkaarloo surtout le culte musulman bi ngay wax les religieux am na aussi ay forte communauté bien organisée mais malheureusement euh, léeg-léeg ñu yaakaar ni ñun on doit seulement tendre la main aux autorités ñu ñuy jox sukkar ñuy jox lii ñuy jox laa ko jeex na et je remercie au passage sa équipe sociale bi bi nga xam ne fin ramadan bi jot jot nañ distribuer ñu bëri euh, jot si ñuy suukar ñuy ceeb loolu tamit ñu ngi lañu remercier parce que def nga ko te yaakaar ñu koon tellement affaire yi dafa xattoon te liggéey bi dafa bëriwoon seen kaw parce que mairie bu bees boo fa nekkee fa tabaarkalla lu bëri am na ay priorité yoo xam ne xëy na doo doo tal lu bari mais fexe nga ba def loolu ñu ngi la siy sant bu baax di la gërëm euh, di ne alhamdulilah li nga wax dëgg nañ ko en tant que responsable politique waaye te en tant que maire waa Ziguinchor yëpp nga ne liggéey action politique action non politique ngay def man lépp loo xam ne yaa ngi koy def politique nekkul foofu pour population yi la kon def naa ñun tamit. war nañ mun a roy si loolu lépp loo xam ne war nañ ko def pour liggéey Ziguinchor nañ ko def te ñu fàtte suñu couleur politique wala ñu fàtte ban leader lañ àndal wala kan mooy suñu mbokk wala kan kan moo kan moo ñu jox li wala kan moo ñu defaral li parce que dëkk bi lañu am dëkk bi lañu moom fan yi passé tasewoon naa ak sa benn équipe euh, ay collaborateur si ay daje ma wax leen loolu loolu imam ratib ñu fekkee na ko man leen boo leen demee leen ne président Ousmane Sonko sunu pré sunu maire la ñun yëpp bu réussir pour ñun la bu échoué ñun ñooy échoué kon li ñu man pour jàppale ko li ñu man pour ñaanal ko suñu devoir la le devoir citoyen religieux foofu la le religieux warul ne man sama jàkk rek walla sama sama njumaa rek wala sama église rek dañu war a participer si développement suñu communauté bi si développement suñu commune bi wan jeté nga ñu ay fleurs yu bëri sax loolu yëpp ça montre encore une fois de plus sa esprit d'ouverture ak sa disponibilité mais aussi charge la suñu ñun tàmmuñu loolu li ñu sant noonu lu ñu ñaan noonu tàmmuñu ko c'est l'occasion i may c'est l'occasion ñun kër diine yi kilifa diine yi ñu am rupture sunu biir ñu xam ne collaboration bu ñu war a am ak maire yi du rek tàn tàllal sunu loxo ñuy su sukar wala ceeb wala rek ñu ñuy defal ay zeng wala ay ciment si sunu ay jàkka wala église passé na loolu moom lu mu affirmé lu mu wane passé na loolu dañu war a dugal sunu loxo si liggéey bi waaye ñun duñu ay comptable duñu ay technicien mais ay leader d'opinion lañ dañu war a waxtaan ak population yi dañu war a waxtaan ak jeunesse bi dañu war waxtaan suñu biir imam dafa am rôle bu fort imam dafa am rôle bu am solo waaye bu ko joué askan bi dina si am njëriñ mais bu ko jouéwul day yem si jàkk ji te li mu ñu wax léegi encore une fois dafa mel ne maire yi daf ñu ubbil bunt bi pour que ñu mun a participer mais de façon ñu conseiller nit ñi ñu waxtaan ak nit ñi ñu sensibiliser nit ñi léeg-léeg boo ne imaam waxal si lii mu ne déedéet affaire politique la duma si dugg mais leeral na léegi ne li mu woote nii ak li muy def politique nekkul foofu développement moo fa nekk defar Ziguinchor moo fa nekk kon defar Ziguinchor bu kenn wax suba ne loolu politique la waay nañu jóg nañu wax nañu def pour ñun la lépp ñuy liggéey fii pour ñun la te yàlla moo dogal lii yàlla bu dogalee dangay ngay nangu nga jàpp si yaa ayyuhallazina amanu atiu llaha wa atiu rasulu wa awliyaa'ul amri minkum loolu la yàlla wax kon yàlla moo leen teg fii nañu nangu jàppale leen jàppale suñu bopp euh, effectivement di saluer volontaire yi nga wax ñun religieux war nañ nekk aussi ay volontaire waruñu xaar rek ñu ne jóg leen def leen wax leen wala waruñu xaar rek cérémonie rek ñu ñuy invité relais lañu non ñoom nun ñu nekkee relais maanaam prolongement état ñun tamit noonu lañ nekkee prolongement mairie parce que pour population la ñuy liggéey kon dafa laajte tey ñu am ay imaam yu bees maanaam comportement yu bees si suñ si ñun loolu la laaj dafa laaj ñu jël responsabilité yu bees si suñu société bi bañ ko yemale rek si jàkk yi ak si jumaay yi euh, monsieur le maire da nga wax ne yaa ngi miser sur le capital humain lu am solo la nit ki daraja bu mu am ak makaama bu mu am du ko exploité te li nga wax dëgg la buñ ko exploité rek def naa société bi dina si am njëriñ kon imaam yi xadis yi alquran bi macha allah baax na waaye am na beneen devoir citoyen boo xam ne loolu la président Ousmane Sonko loolu la maire Ousmane Sonko laaj ñu pour ñu def si suñu loxo ñu def si suñu tànk mooy ñu wax ñu euh, wax ak xale yi ñu sensibiliser te ñu liggéey wax na liggéey imam passé wu liggéey religieux boo demee o nord les grands les grands fermiers ñu yore ay tool yu mag a mag a mag mais ay sëriñ lañu mais Casamance boo gis dama sëriñ bi am tool kon def na occasion am na ñun tamit lu na am fële ñu bañ nekk des complexé sunu maam yonent bi sallallahu alayhi wa donc liggéey na kooku fu mu liggéey kenn waru xaar kon je pense que appel bi vraiment ñu ngi koy saluer